président Macky Sall bi nga xam ne moo ñu wóolu jox ñu ndigal wax ñu nag ne mbir mi na bar daaw bu mu jógee ci màggal gi ñu pare cérémonie officielle bi mu dégg fi lum fi dégg ci la ma oo ne ma DG Touba nee nañ def nga fa juróom-benn fukk poste ak ñett est-ce que réglé nga problème bi définitivement parce que boobu moom fàtte na lu ñu def ci màggal bi mais def na ma est-ce que réglé nga problème bi définitivement ma ne ko waaw monsieur le président pour ñu régler ko définitivement kat il faut ñu def poste Touba 2 bi nga xam ne moo bokk ci boucle di Ferlo lu tax poste bii nag senela Senelec yëpp génnee ko ndaxte damay fàttaliku bu ñuy soog a nekk ingénieur bu màggal gi desaan ñeenti weer wala juróom juróomi weer directeur général dootul nelaw directeurs yi dootuñ nelaw chef de distribution yi dootuñ nelaw ndaxte ñëpp dañuy xool na la ñuy def yóbbu tourant bi Touba ndaxte métti woon na ñu def juróom-benn donc Touba da doon màgg rek di avancé Senelec di daw rek di ko daxee léegi nag président ne loolu dama ko bëgg a ñu ne ko léegi nag président pour inverser ko il faut ñu def poste Touba 2 bi nga xam ne léegi ak poste bi nekk buntu Mbàkke dañuy ŋànk dëkk bi suy yokk ñu ànd ak moom suy tawee ku ñu ànd ak moom. loolu moo waral poste bii nii tey ñu def ko muy poste boo xam ne poste bi juróom-ñaari milliards lay jar donc bokk si poste yi nga xam ne mooy poste yu gën a moderne Sénégal poste bokk si poste yi nga xam ne nii ëllëg yi tamit mun nañ ko yokk comme nuñ ko comme nu ko dëkk bi di soxla kon sëriñ bi bu ñu yàlla defalee loolu tey jii nii ñu ñëw liggéey ko fii day nekk loo xam ne dañ koy sante yàlla di ko sante Serigne Touba. xam naa ku ñëw ndindi di wax nag faaw nga fàttaliku Cheikh Mouhamadul Amin wala nga fàttaliku Cheikh Mouhamadou Boussa Dieng Cheikh Moussa Fallilou wala nga tudd Serigne waaye boo ñëwee ci Serigne Abdou Fatah muy seen jawri da mën a tàmbalee wax ji foofu te jàppale sa bopp mooy barab bu toll nii nga yëkkati ko joxe ko rek ngir dundal sa yoonu maam loolu buñ fi agsee faw ñu yëkkati kàddu nuyu ko ci digganteem njabootam gi fi teew eh, sëñ falu doomam sëñ Xaadim chef du village seen ndindi kon ne leen sëñ bi noo bu sama kilifa madame le ministre Aïssatou Sophie Gladima ministre et des énergies moo ma wax naa gunge le directeur général de Sénélec sunu xarit Papa Mademba Bitèye ànd ak ministère bi yépp pour ñu ñëw fekke bis bu màgg bii nga xam ne dara du si ngóora lu yàlla subhanahu wa taala dogal la ndax ku ñu newoon ci suñu dund liggéeyu Serigne Touba bii dinañ ci tegub xeer ñu di ko kon nag ñoo ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla di sant yonent bi di sant Serigne Touba bu baax a baax ah bis bii nag tey ni ko Pape waxee bis bu rëy la ci ñun ndax tey képp ku fi fekkee di nga rester dans les dans l'histoire du Sénégal et dans l'histoire de Touba ndax ñépp xam nañ ne poste bii tey ñu fas yéene def fii te muy jar 7 milliards mu nekk ci ab projet bu gën a rëy poste bii bis bu taxawee ëllëg jafe-jafe yi ñu doon am ci poste bu njëkk bi poste bii dina ko mën a secourir ba waa Touba dinañu jot courant bi ni ñu ko bëggee ak dëkk yi ko wër yëpp parce que accès universel lu lu nga xamante ne nii président Macky Sall daf koo bëgg Diédhiou wax na ko sànq président Macky Sall dafa doon chance ci Sénégal ah surtout ci secteur bii ñu nekk muy secteur de l'énergie yàlla dafa def moom am njàngam sax ci loolu la jublu woon ba mu nekk DG Petrosen nekk ministre de l'énergie nekk premier ministre tey nekk président de la république ñun yor bi ñu yor ministère bi dafa yomb ñun lool ndax dañoo yor rek sunu big ak suñu fëy dañuy jéggi tali bi rek dem pale mu ne jaaral nii ñu jaar fa comme ni ab sëriñ di saawee ab taalibeem mu ci jaar moo tax sonn ñu ci ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax a baax ndax gis xam-xam bi leer na te xam nañ ne fi mu jëmee Sénégal bu buñ fa eggee sant yàlla kese la waaye leer na ma ndax damay fekkee réunion yi gën a mag ci ministère bi ak ci présidence ci li nga xamante ne day bokk ci secteur bi Touba daal fi ko président Macky Sall teg yàlla rek boo ko xam ak xalif général des mourides xam naa ne teg na ko fu kaw a kaw bu sañoon projet yëpp tey dañuy sotti lu ñuy tàmbali mu ne nañ ko tàmbalee Touba ndax mu mën a law ci Sénégal ñëpp jot ci asalaamualeykum wa rahmatullah. Serigne Bassirou daa wax ne Serigne Mountakha nee na ñi ngi daje daje bu ko neex tey ndax lépp loo xam ne luy jëmale Touba kanam la luy yàkkali liggéey Serigne Touba bi la jéego bu ci nit dox natteblewul ne moom nga ko doxal gis na itam ne ñim seqal liggéey bi ñëpp kenn ku nekk fa nga toll fa nga mane yaa ngi fay defee ginnaaw wax nañ ni fii li ñu fi def njiitul réew mi moo fi yenn si ak njabootam moo ko fi def itam kon cant googu ci kookee la koy tàmbalee muy président de la République muy Macky Sall ak ay ministre am ministre de ba ki dem la fi jógee ak ministre Sophie mi fi yebal waa ministère te lii jaar ci ministère am nañu xam ne sëriñ Bassirou nee na nañu xam ne sëriñ Muntaxa day jenn yitte la muy sàmm liggéey bi sëriñ Muntaxa sëriñ Touba bi sëriñ Muntaxa sàmm liggéey bi sëriñ Touba bi mooy yitteem joo xam ne ci lay xëy ci lay gont pasteefam ak yëngoom yépp ci la koy delloo kon lépp lu ko waay man man a jàppale te di ko ko defal na nga ko ko delloo ci liggéey bi sëriñ Touba bi